Macky 2012 bu Macky Sall. donc vous êtes contre le choix de Amadou def mais maa doon nag moom du ma nekk ci du ma ko supporter. mais candidat comme moom. non foofu. je veux dire par là. je je suis contre le choix de Amadou Ba. je suis pour mon choix. non vous c'est mon parti qui m'a choisi librement. c'est trop tard ñàkkuma fayda duma ab yambar. nit choisir keneen ma ne léegi kooku la àndoon ci la kaw lan alors que benn bi koy sos en pour jàppale Macky Sall. non mën nga bañ a ànd ak moom mais euh, le voir comme un légitime adversaire. foofu laay waxee ah. le président de tous les Sénégalais xoolal. d'accord dama leen dimbale mais damay woon parce que bu ñuy wax. Mhm. il faut ñu xam. Mhm. kan mooy candidat Benno Benno xam nga lan la woon mooy ñi boole woon Idi for président euh, Benno Tanor Benno Siggil Sénégal Moustapha Niasse ci laa bokkoon. Khady Cissé woon nekkoon suñu plénipotentiaire. très bien mais dégg nga mhm. euh, ak ñoom PIT Dansokho Bathily LD yooyu ñoo ñu nag légitimement maa ngi nekkoon ñii ñu fal ni Amadou Ba bokk ci woon. Mhm. kon juste non bokk ci woon ne bokk ci woon. Mhm. kon benn woon légitime historique mbaa seen candidat ci sous coalition yi maa ngi lancé appel. mon jeune frère d'enfance nag ma rejoindre yaag ñooñu ñëpp may wax. parce que xam naa ne am nga influence. waa mag authentique alors le jeune d'enfant des Parcelles Assainies mm-hmm. ak groupe boobu yëpp bëgg naa ngeen rejoindre seen grand ñoo ñoo reprendre. defaraat benn bokk benn bokk yaakaar mais bi di wax la conférence des leaders di waxtaan ak ñoom ci candidature bi ba ñu ne dañu am consensus ba bi ñuy prononcer le nom de Amadou Ba ne mooy le candidat de la majorité xanaa laajoo woon. xanaa suivre actualité bi xam nga ne ñaari yoon dem naa pale ñaari yoon fasal naa sama candidature. ba xuloo ak waa Saal ba. ba ñu yuuxoo ma du xuloo xuloo ma kenn dafa am groupe bu six personnes sur trois cent xam nga dafa bëri ay naafeq ak ay yambar moo tax bi ma ne bi ma ne président man dama foog ni dañu war a bàyyi biir benn ñu bëgg a dem dem bu ñu demee second tour bu dee am na ba moo ëppale ma jàppale ko bu dee ma ëppale mu ñëw jàppale ba ñu ne oh pour ñoom mënuñ yaakaar ne man mën naa duma Amadou Ba déjà xam nga pouvoir day fuyuloo man leen yéen yéen yéen a may yuxoo baa leen a seen de président ak doole ma ne yéen yéen ñàkk jom ci ci ci ci ci naa fekk yéen président bi ngeen bëgg loo deex tey man naa koy défendre bu tàngee ba tàng yéen ku leen ma sa gis ngeen défendre Macky Sall yéen ah parce que yéen jàlloo moom tey pas à pas nii rek ah. bi koy saaga di war di ko attaqué kuy dem ca média yi kuy dem publiquement di ko défendre devant Sénégal yéen mosoo défendre Macky Sall tey ngeen jaay naa fekk parce que bëgg ngeen comme choisir na Amadou Ba rek ngeen bëgg lu ko neex ne woy woy président El Hadj Diouf amul droit moom it am am xalaatam am am idée am El Hadj Diouf du ku ñuy noot. très bien maître très bien alors pour peut-être fermer cette parenthèse ci ci justice après ñu dem euh, euh, assemblée nationale bu fekkee amoo une dernière question euh, tout à l'heure soo waxee ci waxu réforme yi donc en quelque sorte. da nga jàpp ne que justice manqué na indépendance euh, ci ci yenn point est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui parce que yaa koy wax ne am na ñoo xamante ne euh, su verdict bi euh, tombé ci seen côté ñu tàccu su su dee beneen côté la peut-être ñu ñu ŋàññi ko est-ce que ça donne pas raison aujourd'hui réforme yi ngi ci bëgg indi est-ce que du donner raison à ñi jàpp ne que justement des fois pouvoir day instrumentaliser justice ci seen défaveur joxu leen raison ñooñu ay naafeq lañ ay manipulateurs la fi fii la tëj Mamadou Dia yóbbu ko prison yóbbu ko ba Kédougou moog Valdiodio Ndiaye fekk nañ loolu day faatu Senghor diggante ma Mamadou Dia ba mu ba mu éclaté dañu naan jàpp yóbbu tëj leen yóbbu leen Kédougou te kenn waxtaan boobu justice ba baaxul Abdou Diouf tëj na Ablaye Wade ay yoon yoon kenn waxul ni justice ba baaxul Ablaye Wade tëj na fi ay nit ay mbay juuf tëj na fi ay yeneen nit ba ci Abdou Aziz Tall bu LONASE kenn waxul ni justice bi dafa far mais pouvoir Macky Sall dafa daje benn forme opposition defe naa sax Cheikh Yérim Seck bind na ko benn catégorie nit ñoo xam ni dañ ñëw pour détruire institution yi bu sañoon dañuy dañuy dem nañu taxaw ci kaw euh, urne yi seen euh, député taxaw ci kaw taabal yi di def n'importe quoi parce que respecté wuñ benn institution dem nañ gis nañ ci kenn mu dem ba ca giri yi pale bi di ko xëcc ba jàpp ko yóbbu ko prison ku tey muy campagne Europe naan dafa bëgg jël réew mi ëllëg ba jël ay fiche ku ñëw palais di ca gëree ba xëcc bañ jàpp tëj la yow bëri ta nga nekk palais après yow comme délinquant nga bu ñëw comme benn voyou bu ñëw ci giri yi di xëcc giri yi pale di la ngay dugg biir palais y a un respect pour les institutions di saaga institutions yi di leen saaga di leen menacer de mort dinaa la rey wala nga rey ma loolu fii rek la am ñuy bàyyi loolu ko dëkk yaay jaame wala keneen doo fanaan boo ko def denu saa sa ngeesoo doo fa fanaan dañ lay géli mais Macky bala may bëgg dee ñu naan ouais y trop de détenu politique y a aucun détenu politique au Sénégal. ah bon aucun dañ ma da nga bëgg a taal réew mi wala woote dinañ mais ñi ah nekk di def grève appel à l'insurrection appel ak menace ak ak complicité de meurtre yooyu du benn yoon détenu politique du ay du am ne nañu dem jàngiwaat c'est des délits de droit commun et des crimes de droit commun ku bëgg a reylu nit dem leen toj mortel combat dem leen dee dem def li ñu jël ay cocktail molotov di sànni ay femmes di dee ci ci kaar nga naan ma décision politique la wala dinaa diw dinaa ko rey ñu jàpp la menace de mort ah am na ko tax de bu ma gisee diw diw ca baar ba damay dem rey kooku mais maître ñi def ay publication sur les réseaux sociaux nag te ñu jàpp leen tey ba sax am jigéen yoo xam ne comme Mati Sarnia notre consoeur mhm. tey ñuy tenir grève de la faim parce que jàpp nañ ne dañu yàgg ci kaso bi te ay détenus politiques loolu détenu politique kenn du ci détenu politique ñoom ñëpp man yéenuma kenn prison mais y au Sénégal jàpp ñu kenn parce que dafa créer benn pensée loolu ma détenu politique par exemple ñu ne le communisme est interdit dans tel pays par exemple en Arabie Saoudite wala nangam ñu ne ku fay développé ay affaire communisme mooy gëmuloo yàlla bu jël loolu doon wax ñu jàppale tëj ndax sa xalaat. oui mais sur la base ñoom ñëpp ñu bokk benn parti et pour certaines personnes sur de simples déclarations wala d' interrogation ñu jàpp leen loolu comment on l' appelait même. déclaration mën na taal àddina bi déclaration li ñuy wax complicité par instigation. dañu daan ko lii dañu rayonte wàccal leen ci mbedd mi gat sa gat sa bortel combat dam leen nangam gars yi di taal. yow lu xew yow la ma dese yaa reyloo nit ñi da yaa taaloo nit ñi yaa gat sa gat sa nit ñi yaa mortel combat nit ñi ñu rey toj dugg ci Auchan yi station essence yi rajaxe ñëw suma kër rajaxe ko man baal naa leen parce que président de tous les Sénégalais baal naa ñëpp yéen ma prison mais nañ bàyyi daan détenu politique ay taalkat taal kër euh, diw taal euh, euh, ay oto Matar Ba Ustaz Coulibaly jàll feneen ànd doxadoo ci Auchan di promenade toj yàq rek ñu jàpp ñëpp ñu ne y' a plus de mille détenus politiques buy nekkee détenus politiques y' a plus de mille bandits en prison. waaw mais ci déclaration yooyu xëy na ñu ngi ŋàññi yooyu déclaration ba ñu jàpp si ñooñu mais en face. am na ñoo xamante ne dañuy wax pire que ça mais dara du leen ci fekk du ñu inquiété comme un député dans la mouvance présidentielle comme euh, le président de l'association des maires ak ñeneen ak ñeneen. lan lay wax loo xam wax loo xam ne moo gën a grand. ki jël ki ne euh, pour défendre troisième candidature président Macky dinaa jël jar na jël jaase ba jaayante ko ak ñi nga xam ne mën nañ ko contre. le président daa xam nga la menace. le président de l'association euh, des maires du Sénégal Ndeye Fatou mu ngi koy wax. la même chose mais exactement la même chose que Oustaz qui a exactement lu mu wax euh, euh, tey jii wala Ousmane Sonko su bokkul ci élection yi euh, le pays sera en feu dañ taal dëkk bi ba wax ko en français ne que Macky su bokkul ci élection yi dëkk bi dina nekk en feu et en sang pourtant ils ont dit la même chose kii daf ko ci wolof kii wax ko ci français. non non Assane ah, Seck yàgg naa wax man suivre naa ko bul ci benn wax lañ ko jàppee bu leen tànn benn wax sa Assane. c'est après cette déclaration qu'il a été arrêté. xëy na tombé waral ay gaaf sa la yàgg naa wax ci oustaz ci far la bokk oustaz Dramé. mais non maître. oustaz Baara Ndiaye. am na ñoo xam ne ñoom dañoo far même même boo yeneen bëgguma tudd ñeneen dina may dina may publicité même boo demee sud dem yenn kii am na oustaz yoo xam ne ñoom seen kii yëpp presse la contre le pouvoir et pour benn waa jooju may bañ a tudd turam loolu nag lu ci lu ci waay def lu noonu yàgg naa wax de. ñu jël nu muy mel sa waay rek di ko jàpp wax na lu bëree bëree bëri xam li booba prescription yi prescription mooy délai yoo xam ne bu passé kenn la jàpp booy wax lu metti foo ne yu rek mais Baara Baara Ndiaye dugg na ci prison keneen dugg na ci prison mais du premier wax leen yow prison ay wax yu bëree bëri même sa bi koy jàpp procureur que dafa lim lu mat huit infraction mm. def na lii def na lii def na lii yooyu foog na ni wax na ko waaye jàll na fekk ñu ko noté di ko nekk. xam nga justice dafa sew nga droit dafa sew ne ne boo ko jàngul benn phrase boo tey ñu bàyyi la da nga beneen xoola jàpp portable ci benn portable buñ nangu ci gendarme mooy la goutte d'eau qui a fait le vase parce que boobu lu bëri bëri ñu koy noté di ko nekk mu def benn bu ndaw rek ñu ne kaay nag <laughs> yow ñu doon waaj di préparé far da ñu ko yombal la moo tax d'accord ba lii yëpp mm-hmm. ñoom ustaas yooyu yéen uma leen prison ne wax yàlla mm-hmm. waaye nañ bàyyi wala ñuy jàngale yàlla ñuy jaamu beneen nit di ko tarbi yu bëgg lu ko neex di xas diw di di di toujours di attaquer nit pour kay kii kontaan kii kontaan tey moom kooku mu ngi prison comme Assane te mënu koo génne prison parce que moom ci boppam assemblée nationale moom boppam mënu génne prison ci mhm. taxoon mu dem prison mais moom mu ngi euh, mu ngi am résistance buy mëne même étant euh, dans les liens de la détention muy def grève de la faim parce que nee na détention arbitraire moom la nekk victime ah, affaire am la comme noonu la ko gisee ba ne man ku naw la ku naw Bassirou Diomaye Faye la fayeen la foog naa ne fayeen waaye nag fayeen yi ah Salman Faye fayeen dañu am dañu am jom te am am ci am fit man xaw ma woon ni Bassirou Diomaye ma ma nga njëkk prison ma soo def grève de la faim mën na ko supporter ndeysaan kii woon mooy kilifa mu yaakaar ko war na ko xoolaat bu baax bu dee day toog daan damay def ay feem parce que lii mënu ma ko supporter di dee deelu bañ a lekk pour bu ñu léegi mu dee ndax ñu baal ma